jërë ngeen jëf ci li ngeen tàmmu seen télévision xibaar 221 TV gannaaw bu ñu leen nuyoo dal leen ak jàmm ci xibaar yi ci tënk bokk na ci la ca gëna fa fës sëñ Mountakha Bachir Mbacké di sàkku ñu yokk sécurité bi fële ca Touba. dinañ ci tofta rapport des Cour des comptes Yewwi Askan Wi doon amal ab jënook taskat yi xibaar yi. Abdoul Mbaye nekkoon premier ministre bu Sénégal di kat di dénoncer échec gu chef de l'État ci condition de vie wu sénégalais la di koy ak manifestation bu société civile bi nara amal amal niki 30 décembre bi Guy Marius Sagna di sako mobilisation bu ngeen taxilo tout ñu di ko gën ci comme ni leen ko waxee woon ci boppi xibaar yi sëñ Mountakha Bassirou Mbacké di xalif général den Mouride doon dalal autorité sécuritaire et administrative ca Touba ci teewaayu porte parole am bi di Serigne Bassirou Abdou Khadre bokk na ca la muy sàkku ñu yokku sécurité fële ca Touba gannaaw ba ay samba booy débraqué ci benn station service ca Ndamaatu ak it ab xale bu jigéen bu ñu agressé ba mu ñàkk bakkanam xalif bi di sàkku ñu yokku dispositif police ak bu gendarmerie. ñu àddu ci leneen ak rapport Cour des comptes Askan Wi doon amal ab jannook taskati xibaar yi Ousmane Sonko daal di dikkaat ci leeral ci yorin bu ñaaw buñ doon saax-saaxee alalu senegal ñu daal di koy teewlu. xam nga il faut ñuy waxante dëgg bu ñu mel ni xamuñu woon li xew wala ñu mel ni lii daf ñoo bett lii daf fee am amaat fi amaat fi amaat fi fi ñuy wax coowal pétrole bi. ñun ñu wax ci lu bëree bëree bari waaye dafa mel ni dégguñu woon il a fallu que ay journalistes bitim réew BBC def reportage coow li na gañ looloo andi woon suñuy quatre cent mille ñaata rapport la cour des comptes déposé cour des comptes at bu ne mu déposé rapport te ministre sangam këpp na lii ministre sangam këpp na lii directeur général sangam def na lii mbokk yi dégg nañ fi waxu dorop dégg nañ fi waxu ay raxas biye dégg nañ fi waxu passeport ana ñooñu ñëpp ñi ngi dox seen dox seen seen yoon tranquillement te bis bu ne ñu jàpp fi waa opposition ci dudul dëgg tëj leen ci kaso bi am nga immunité amoo immunité bis bu nañu jàpp fi journaliste tëj ko ci kaso. Abdoul Mbaye di premier ministre ba woon dikkaat ci condition yu métti yi sénégalais yi nekkee ak it yokkute prix bi ci dikkaat yi ma ci Covid 19 bi nga xamante ni na ñu bëri seeni petits commerces yi ñu doon amal. di ñaaw ñaawlu tamit euh, li nga xam ne moo yori leen bu ñaaw bu euh, ñuy sax-saxee alal réew mi ak it rapport Cour des comptes li mu fësal ci ay milliards yoo xamante ni luubal nañ ko di xam ne ci noonu nag mënoon na seef yi côté santé bi éducation ak it euh, yokku wàññi lu jëm ci wàllub énergie gi nga xamante ni plan Sénégal émergent ci la dépendroon ñu àddu ci leneen ak manifestation bu société civile na la amal ni ki 30 décembre bi Guy Marius Sagna di woote ab mobilisation gannaaw ba rapport Cour des comptes wëy di Touba Guy Marius Sagna di sàkku képp koo xamante ni de la république euh, woowoon na la ca palais ni ki jamonoy mbas mi nga daal di génn naka noonu tamit askanub Sénégal nañu mobiliser wu ñu ànd daal di xeex yorin bu ñaaw bu ñu yor alalu Sénégal. li mooy li gënoon a fës ci tënki xibaar yi di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ci yeneen i tënki xibaar.